réew mi ak imaam yi nga xam ne ñoo jiite ak lenn ci ay association islamique ak lenn ci ay kuréel yoo xam ne macha allah ñoom ñëpp seen mbir mooy taxawu diine ak taxawu askan wi gannaaw tey bi ñu defee réunion boo xam ne ñu ko def tey ci 11h ba waxtu wi ñu wax ak yéen daanaka léegi mat ñeenti waxtu ñu doon waxtaan ci mbirum xeebar bu boobu nga xam ne ñëpp xam nañ ko diñaan yàlla yàlla na ko yàlla jëlee ci àdduna bi. te mooy coronavirus bi nga xam ne lëmbe na àdduna bi te jaaxal ñëpp eh, teñ commencé koo dégg fii ci sunum réew Sénégal donte ñi ngi wax ne mi ngi wàññeeku waaye xoddiku bala ngaa lakkale yàlla waxoon ci alxuraan karim ne yaa am alladina amanu xudu xidrakum mooy xoddiku leen bala ngaa lakkale moo tax kuréel gii jug ci njiitalu suñu imaam Dame Ndiaye mi nga xam ne macha allah tabarak moom lañ ko jiitaloo mu boole association yi ak këri diine yi ak chef yi ñu doon waxtaan ngir nan lañ mën a fexe ba fegu ci. musiba boobu nga xam ne commencé nañ ko dégg ci àdduna bi waaye dégg ko fii ci réew mi Sénégal gannaaw bi ñu defee waxtaan wu gudd wu lii lañ d'accord ci ne mooy li ñu war a génne pour baaxa ko askan wi baaxa ko mbooleem koo xam ne ab sénégalais ak foo mën a nekk moo di ñu tënk ko ci daanaka ci juróom-ñetti poñ juróom-ñaari waaw juróom-ñaari poñ ci dañ ko tënk juróom poñ ci dañ ko tënk bi ci njëkk mooy dañoo xam ne mbirum julli ñi ak seenu defaru mi ngi nekk ci ñuy diisoo di waxtaan mbir lu mu rëy rëy rëy buñ diisoo waxtaan mën nañoo génne solution rawat na waxtu yu mel nii nga xam ne waxtu épidémie la mu lëmbi àdduna bi loolu lépp nag ñu koy teg delloo ko ci ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala wax ci alxuraanu karim ne jullit ñi seen i mbir lépp mi ngi ci nañuy diisoo ba mën a doxal seen mbir waaye tamit delloowaat ko ci ndigal loo xam ne yàlla subhaanahu wa taala digal na ko jullit ñi ak fu waxtu fu ñu mën a nekk mooy mbir mu rëy leen gaaree moo xam ne tiital na leen te jàpp nañu mbir mu rey mu tiit mu gën a garaaw coronavirus bi gisaguñ ko nee na loolu day bu amee lawar ci julli ña mooy nañ fexe ba delloowaat ko seen i borom yi xam-xam delloowaat ko seen i kàngam delloowaat ko seeni njiit ñoo ñuy toog waxtaan ca luñ ca jël rek buñ leen ko joxee loolu na leen doy te jàpp nañ ne tey jii lii ñu fi wax ni tey ñu fi daje ñëpp ay responsable lañ ñu fi daje ñëpp ay kilifa lañ ay imam lañ ñoo xam ne ñoo représenté ñu ci baree bari ci kilifa diine yi kon ñu ngi ñëw ci li nga xam ne moom lañ joxe ngir mu nekk loo xam ne bu ci population bi sukkandikoo yàlla mën ñu dimbili ba coronavirus bi dañ koy dégg rek waaye duñ ko gis fi ci réew mi di Sénégal euh, bi ci njëkk mooy euh, ñi ngi fàttali bu baax ne mbirum euh, maanaam li nga xam ne mooy coronavirus bi wala épidémie yu mel nii yàgg naa am ci àdduna suñu borom subhanahu wa yàgg na ko wàcc ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana am waaye yonent bi sallallahu joxoon na ci benn misaal moo xam ne bu ko ñëpp respecté woon jàpp nañ ne boobaa lii sax du am du agsi fi ci réew yi te loolu gis nañ ne ñi dut ay jullit sax ñi ngi koy jëfandikoo mooy quarantaine bi nga xam moom la ñu wax mooy bu fekkee ne épidémie dafa am fenn bu fa kenn jógee ku fa ku mu fekkoon te na toog ba yàlla wàcce la koy faj loolu kon hadis boo xam yonent sens la waxoon na ko bu wér bu yàgg nga xam ne kon buñ sukkandikoon rek ma yàlla mën naa def kon lii nga xam ne mooy coronavirus du agsi fii ci réew mi waaye xam ne maanaam euh, li ñu tuddee épidémie wala boog mbas yi ak balaa yi euh, naam yàlla da ko moo àdduna waaye tamit am na ay sabab yoo xam ne moo tax muy wàcc bokk na ca maanaam weddi yàlla gu metti bokk na ca maanaam mooy yàlla gu taratar bokk na ca maanaam euh, tumurankeel julliti addu julliti julliti yàlla yi ak wala doomu aadama sax humanité bu ñu ko mën a wax ndax ndax yàlla suma subhanahu wa taala arrahman lay jëfandikoo fii képp ku yërëm nit ñi mu yërëm la waaye képp ku leen ñàkk yërmaan mu ñàkk la yërmaane kon jàpp nañu bokk na ci sabab yi wàccee musibeeg balaa yi mooy euh, mooy xeeti weddi yàlla yu metti xeeti yàlla yu waaye xeeti toroxal xeeti doomu aadama yi loolu bokk nañ li wàccee loolu nag euh, bu amee day mel ne kon punition la bu yàlla subhanahu wa taala wàcc suñu kaw waaye nag teewul loolu lépp bu amee tamit la ñu war mooy ñun julli nii mooy delluwaat ci xadis bi xam yonent sallallahu waxoon na ko ne yàlla wàccewul benn jàngat lu wàcce na lu ko fecc yàlla wàccu benn jàng loote wàcce na jàngoro ju koy faj mooy mooy wàcce na boog maanaam saafara su koy faj saafara soos nag waa kuréel dañoo gis ne waawuñu jug gëstu ko eh, ba yàlla subhanahu wa taala dajal nañu ak moom te alhamdulilahi rabbil alamin wax nañu réew mi sax kee ñett ñi ko amoon kenn ki eh, faj nañ ko fii ci réew mi na expérience boobu bu ñu ko jëlee boole koog li nga xam ne moom la borom xam yor ak niti diine yi yàlla mën nañoo dimbali ba Sénégal dañuy faj waaye da kenn du fi gis maanaam li nga xam ne moom la ñu tuddee coronavirus bi kon bokk na ci loolu mooy xaddis ba yonent sallallahu alayhi waxoon kon loolu borom xam-xam yi kuréel gi ñu ngi wax ne borom xam-xam war nañu jukkoon gën a moo xam médecins yi la moo xam euh, maanaam ingénieurs yi la moo xam nit yi diine yi moo xam ñëpp lañ ñu jéem a jug gëstu nan lañ mën a fexe ba ama euh, saafara soosu nga xam ne yan sens waxoon nañu garanté loon nañu mbir lu mu rëy rëy rëy ak épidémie lu mu rëy rëy rëy yàlla wàcc lu koy saafara te loolu jàpp nañu bu gëstoo yàlla mën nañu dimbali ba am ko loolu nag kuréel gi mi wax ne war na kon ci képp koo xam ne rek maanaam ab jullit nga wala war na ci képp koo xam ne ab citoyen nga nga delluwaat ci euh, asbaab yi xam sabab yi nga xam ne mooy tax yàlla subhaanahu wa mën laa dimbali ba nga mën a mucc ci loolu loolu mooy jël mbir yi delluwaat ko borom xam yi mooy jël ko ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne buñ ci gëstoo yàlla mën naa dimbali ba feebar bi saafaru ñaareel ba mooy ñi ngi wax ne euh, ñi ngi woo askan wi mooy nañ delluwaat ci li nga xam ne moom buñ ci jàppee yàlla mën nañu dimbali ba li nga xam ne Euh, mooy coronavirus bi mën na fee dañee te loolu mooy euh, ñuy fexe bay sukkandiku ci euh, yàlla su borom subhanahu wa taala nga xam ne xam nañ ne lépp lu wàcce moo ko wàcce waaye lépp loo xam ne tamit maanaam am na moo ko dogal ñu ñu sukkandikuwaat ci yàlla su borom subhanahu delluwaat ci moom waaye tamit sukkandikuwaat ci li nga xam ne mooy mbir yi nga xam ne maanaam maalum paj la lépp loo xam ne wax nañ ne boo ko defee te te loolu dàquwunt ak diine te loolu tamit maanaam médecine aayu ko loolu nit ki war na caa mën delluwaat ba yàlla def mu aar boppam waaye aar tamit ni nga xam ne moom moo mooy askanam ñetteel ba mooy ñi ngi woo euh, population peuple Sénégal ak mbooleem ci xeeti maanaam waaso yi ak mbooleem ci xeeti maanaam xeet yi ak fu ñu mën a doon ak mbooleem association yi ak mbooleem diine yi ñoom ñëpp ñu ngi leen laabire di leen woo mooy ñu gën a euh, fekk seen bopp gën a ñoŋal seen bopp ci lépp loo xam ne bu ñu leen waxee ne leen lii nañ ko def bu ñu ko defee loolu dana tax euh, corona bi duñ ko gis loolu asia kuréel gi mi ngi woo mbooleem xeeti Sénégal yi maanaam ak fu ñu mën a nekk ñu tënk sukkandiku ci loolu ndax loolu dana bokk ci li nga xam ne yàlla mën nañu dimbali ba euh, feebar miy wàllee ak di wéy ak di law bu kenn ku ne sukkandikoo ci li nga xam moom la ñuy digal ci médecin yi ak li nga xam moom la ñuy digal ci kilifa yi jàpp nañ ne boobaa euh, pest bi wala mbas mi am du te kenn te loolu bokk na ca yu baree baree baree baree bare yoo xam mooy ak naka noonu bokk na ca di moytu euh, bërëb yi nga xam ne am na fa nga bañ faa dem bokk na ca euh, euh, maanaam di seetal sa yére bokk na ca di di di di seetal say say kër bokk na ca tamit lekk loo xam ne da lay wóor na li boo ko lekkee yàlla mën na la dimbali ba feebar yooyu du jaar ci wala yeneen feebar yoo xam ne dana jaar ci yow. ñeenteel bi bokk na ca mooy ñi ngi woo mboolem borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñi ngi wax ci wàllu diine ak waaraatekat yi ak lenn ci nga xam ne sañ nañ sañ nañ leen ko wax muy ay sëriñ. ñoo ñëpp ñu bokk ci maanaam campagne bi nga xam ne ñu ngi koy def ngir nan lañ mën a fexe ba dakkal euh, jàngoro ji nga xam ne mi ngi law te muy coronavirus bi loolu kuréel gii boole tey ñu ngi woo ñëpp di leen di leen woo pour ñu gën a dugal seen loxo gën a dugal seen kàddu ak kenn ku ne noo ko mën ak wax ak ak ak ak nang la jekkoo nga def ko ngir ñu sensibiliser population bi bañ gën a moytu li nga xam ne mooy waral euh, feebar bi gën a law gën a tasaaroo loolu kon ñu ngi ci woo mbooleem koo xam ne yaa ngi ci biir mbir bi ngir ñu jàpp leen ndax jàpp nañu loolu bu ñu ko defee yàlla mën nañu dimbali ba coronavirus bi mën na fee yem te loolu lépp mi ngi aju ci ñun nan lañ mën a taxaw ba dakkal ko ba xeexal ko naka noonu euh, juróomeel bi mooy ñi ngi woo askan wi di leen laabéré ni nga xam ne médecins yi noonu lañ ko waxee ak ñi nga xam ne ñooy wàllu santé ni ñu koy waxee ci télé yi ne képp koo xam ne gis nga ay gaar yoo xam ne gaar na ci yow ni ñu ko waxee ci wàllu euh, maanaam ay ay yaram muy tàng ay wàllu sëqat ay wàllu xeet yu mel noonu bu ragal bu tiit ndax même bu fekkoon coronavirus nekk fi woon da nga daan dem ci médecin daan ko xoole rawatina bu mel kon ñu ngi lay ñaan di la sàkku ne euh, na nga dem xooli sa yaram ci médecin boo gën a jege wala nga woote loola dana leen dimbali bu fekkee ne xëy na loolu la euh, bu ñu ko teelee xam mën naa saafaru waaye bu fekkee ne du loolu tamit yow am nga ci ñaar mooy faj nañ la wér nga te doo wàll kenn kon loolu tamit ñi kuréel gi dajaloo ñu ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne gaar-gaar yooyu am na ci yow rek na nga gaaw daw wuti kër docteur wala nga woote ci numéro yi nga xam moom la ñu wax loolu dana tax feebar bi du gën a law du gën a a tasaaroo naka noonu euh, juróom juróom juróom juróom benneel bi mooy ñi ngi wax di woote bu wér euh, ñi nga xam ne tamit ñoo yor wàllu communication ñi nga xam ne ñooy wax ak wàllu site internet yi ak wàllu réseaux sociaux ak fu manti doon ñoom ñëpp ñu ngi leen woon ne nañu ànd ak ak dal te bañ a ragalloo doomu aadama bañ a ragalloo nit ñi loolu nag bokk na ci ñi nga xam ne ñenn ñi nga xam ne des fois Euh, dañuy dañuy dañuy communiquer noo xam ne waruñu ko communiquer wala ñuy euh, euh, wax wax joo xam ne mën naa tiital nit ñi ba tax nit ñi duñu ànd ak seen sago loolu tamit bokk na ci li nga xam ne mën naa gën a yokk feebar ndax dañuy wax ne feebar li ko yokk bokk na ci mooy xalaat xalaat yu bari xalaat yu bari mooy stress bu bu yàggee bari nit ñi jàpp ne kenn ku ne loola wokk sax feebar nga wala ku la jege feebar nga loolu mën naa gën a indi panique boo xam ne mën naa gën a yokk ci doomu aadama te fekk na sax boobu loolu ne bokk na ci ñi muy gën a yëpp mooy ñi jabet ñi nga amee ñi amee tension ñi amee lu mel noonu loolu boo ko boolee stress ak rek bu la bu la bu la duggee rek wala yaasu billahi mën nañ laa indi jafe-jafe te fekk dara wóorul lu dul fausse information yi joxe ak yi nga xam ne nit ñi ngi koy joxe te loolu wala yaasu billahi taala mën naa lu bare bari ci wàllu dundu doomu aadama yi naka noonu euh, juróom-ñaareel bi ñu wax ne ñi ngi gis tamit ay fausse information yoo xam nit ñaa ngi koy joxe yoo xam ne daanaka euh, dañu dañuy gën a aggraver mbir mi mooy dañuy fekk xew-xew yoo xam ne xewoon na bu yàgg yàgg yàgg yàgg ñu jël ko monter ko euh, boole ko loo xew xew-xewu tey la di ci tiital nit ñi di ko envoyé ko partagé yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne mën naa gën a yokk mbir yi naka noonu bokk na ci tamit ñi nga xam ne moo xam euh, médecine traditionnelle la ñu def wala leneen la ñu def commencé ñoom génnee seeni i seen seen nu ñu ko mën a waxee seen i seen i ordonnance di ko joxe naan lii koo def ku naan xas sàngam ku naan nangam nangam nangam nangam nangam nan la ci moytu yooyu itam ñu ngi leen wax ne nañ ragal yàlla suma subhanahu wa taala ndax nit ki bu fekkee ne dafa tiit ci benn maladie boo xam ne tubaab bi yëpp la jaaxal médecine yëpp la jaaxal nga bëgg jékki-jékki génne loo xam ne yow amagoo laboratoire bu ko mën a a seet ba xam baax na wala baaxut amagoo lenn ngay sukkandikoo la doomu aadama yi heure bu ñu sukkandikoo ba tax ñu sàggane wàll wi ne moo leen moo noonu muccal loolu dali wóor lu ca yow yaa am responsable yàqu noonu tamit lay amee ci ñi nga xam ne ñi ngi joxe moo xam ay xeeti mbind ay xaatim la xeeti mel noonu yoo xam ne euh, daanaka boo demee doo ko fekk ci alxuraan karim doo ko fekk sunna doo ko fekk ci màngale mag ñu baax doo loolu tamit dañuy wax ne loolu a garaaw loo xam ne mën naa lor doomu aadama ndax bu ci sukkandiku jàpp ca mën naa jàpp ne jàpp na ci dara te fekk bu demee ci pàndu fekk dara kon daal lii mooy li nga xam ne déclaration bi nga xam ne kuréel gi nga xam ne moo boole ni ñu ko waxee léegi nga xam ne jamono yi lañ ko taxawal te li tax ñu taxawal ko mooy du dara lu dul xam ne eh, ay ay ay ay imaam lañ ay ay boroomi xam-xam lañ ay nit yi diine lañ yoo xam ne eh, war nañoo bay seen wàcc seen wàll ci li nga xam ne moo xew moo tax imaam Dame Ndiaye ci njiitam mu woo mbooleem kuréel diine yi woo mbooleem association yi woo mbooleem comité scientifique yi sax nekk ci biir këri diine yi mu woo leen ngir ñu dajaloo def lu mel noonu eh, juróom waaw mujjantal gi nag kon ñu ngi jeexale Euh, euh, maanaam di rafet lu baax a baax a baax maanaam euh, effort yi nga xam ne état du Sénégal def na ko loolu ñu ngi ko rafet lu gër ndax ñoom tamit ñoom lañ saytuloo ñoom lañ sàmmloo askan wi ci seen kaaraange ak seen sécurité ak seen wàllu santé gis nañ ne mbir mi mu commencé am ba léegi ah taxaw nañ taxawaay bu rafet bu dëgër boo xam ne yàlla dimbali ñu ba Euh, cas bi fi jotoon am sax ñett wala ñetti am na ku ci jot a euh, maanaam maanaam faj ak yi nga xam ne effort yi nga xam ñu ngi koy def lépp mu jaar ci ministre de la yëpp gis nañ ne wax dëgg yàlla effort rafet la loolu kuréel gi ak mbooloo mi ñu ngi koy rafet bu baax a baax baax ci njiital sëñ imam Dame Ndiaye waaye di ñaan yàlla suma subhanahu taala tamit euh, di leen tàllal loxo ñoom tamit ñooy ñooy kuréel yooyu nga ñooy dox ci wàllu woowu di saytu wàllu wàllu santé ak wàllu wér gu ñun tam ñu ngi leen tàll loxo xam ne euh, waxtu bi ñu fa tolloo ñëpp dañoo ràbbanante seen loxo ngir mën a euh, ànd booloo ngir mën fay jële li nga xam mooy euh, épidémie wala ak yeneen mel noonu di ceexal gi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na fi yàlla jëlee coronavirus bi ci àdduna bi jëlee ko ci réew mi Sénégal jëlee ko fépp foo xam ab julli nekk fa ak fépp foo xam doomu aadama nekk fa yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ci barke yonent sallallahu alayhi wa sallam